ahlan bikum Ousmane Sonko ma nga ca diggante dund ak dee allah wal fajri yéen a kaay ñu ko xamal yaw seetal waa yeewi askan wi ay dëmbooj Habib Sy fa ñoo demoon démb ci ajjuma ji hôpital seeti Ousmane Sonko ma nekk réanimation waaye bañ xeggee lañ fa gis nañ fekkee usmaan Sonko moo tax bañ fa bàyyeekoo rek lañ xoo taskatu xibaar yi wax leen seen ak tiitaange seen ak njàqare yëgal waa Sénégal ak waa bitim réew ak kilifa kilifay réew mi yëpp ne Ousmane Sonko jamono ji bakkanam ma nga ca xottu gerte fa sonn ba jéggi dayo ba tax source ay yéen a kaay ay Tata Aïda Mbodj démb ba muy wax presque fa doon jooy ndeysaan Habib si moom fi mu toll fa ñàkk yaakaar ci Ousmane Sonko Dakar Presse yéen a kaay ay Aïda Mbodj kay fa jaaxle jàq jaxasoo ndax nam fekkee Ousmane Sonko xanam gu doy waar la 24 heures yéen a kaay ne Habib Sy kay li mu wax fa leer ah, yaw fa ngay xool fa wax ne Ousmane Sonko mële dëgg la yàlla moo yor bakkan waaye lu nekk mën naa saaga la guuse fa doy waar waxtu nekk mën na ñoo tàggee Ousmane Sonko na faatu na yàlla tere ndax yëf fa garaaw de vox populi na Aïda Mbodj ak Habib fa ñoo xam tiitaange ci bakkanu Ousmane Sonko yaw seetal Aïda Mbodj fa wax ne Ousmane Sonko faa ko fekk mu tëdd ñu ne ma kii mooy Sonko waaye man xàmmeewu ko ndax fa soppeeku complètement moom Ousmane Sonko tamit xàmmeewut ñu waxut ak ñun yëngatuwut fa tëdd rek na làcc na lasar mënut def dara ba tax tàndarma ji nga xam ne xalifa général des mourides fa ko koo jox tàndarma waxati mënuñ ko koo wax ndax fa nekk ci diggante dund ak dee Sonko xàmmewut kenn fi mu toll nii Habib Sy ne na mel fa critique c'est inimaginable kenn mënut laa wax rek nammel ba nga xam ko foo ko natt rek ci gravité weesu na ko ba tax fa ñuy artu balaa làmbaay ñaaw ndax lañ gis ah làmbaay mën naa ñaaw de ba tax soxna Aïda Mbodj ci regard yéen a kaay ne na fi mu toll nii réew mi ku nekk jëla sa responsabilité ngay kilifa ak koo munti doon ci yi ku war a wax wax jot na waaye tamit kilifay réew mi nañ bàyyi Ousmane Sonko mu génn ci kaso gi ndax bakkanu doomu aadama fa foor Habib Sy na ko te Sonko lii dal ko leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne waa F24 yi fa ñoo jóg jéngu fippu ngir ñu ñu tëj kaso ndax politique a tax ñu bàyyi la ñu génn info yi ne kaay ñu ko xamal ba tax fa ñoo nas ay pexe Mamadou Mbodj coordonnateur F24 ne ñoom xam ne ni ñuy def ba fexe ba Dakar nekk dëkk bu dee wet ci wàllu yëngatu maanaam kenn du liggéey ay waxtu yu bëri fa ñoo nar a dem ci kilifa diine yi wax ak ñoom ci ambassadeurs yi ak partenaire réewum Sénégal yi wax ak ñoom indépendant yi ne kaay ne F24 kay junne ak juróom benn fukk ak benn ci ñu jàpp tëj kaso ndax politique a tax ñoom lañ bëgg ñu bàyyi la ñu génn si du quotidien quotidien mais f kay fi mu nii fa ñoo dikkaat ngir nas ay pexe xeex ak njiit réew ak nguur gi ngir ñu bàyyi ñu tëj kaso tribune yéen kaay na leen voilà faay laajte xana lan moo tax ñi jiite kaso yi bugguñu ONG yi dem ca kaso yi xool la fa xew xana lan la ñu nëbbu ba bugguñ gaay gis ko la mu gis moom bés bi yéen kaay mooy na jabar ñaareel fay am doole ci borom këram rawatina borom kër goo xam ne fa ngaa nekk ci nguur yow seetal jabaru Ousmane Sonko ya bi ñu génnee fa ñoo ci Marème Faye Sall ak borom këram Amadou Ba njiitu jëwrin yi ba mu wax ko ci mbiru Ousmane Sonko yi mooy ne ëtt attekaay justice fay def liggéeyam ca nam waree sàmmwante ak loi yi ak règlement yi ma ngi ko waxee ca Vox Populi ca regard yéen a kaay moom Amadou Ba ne man faay hoo ñooñu di wax naan ay intellectuel leen 142 yi nga xam ne ñoo signé ngir ñu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso fare na wax na leen la ngeen waroon njëkkee mooy fexe woote wàllu jàmm ba tax indépendant yéen a kaay ne Amadou Ba kay fa xotti taret kayit bi nga xam ne 142 intellectuel fañ ko signé ngir ñu bàyyi Sonko maanaam moom àndut ca ndax loolu nee na fay nërmel suñu ëtt attekaay yi duudu ka fa koo feelu ca direct news na ko man faay laajte ñoom 142 ñu ngi wax naan ay intellectuel leen nañ bàyyi Sonko waa ñoom bi ñu attaqué république bi dëkk bi fit fitna tàkk xam ñoom ñooñu kenn déggu leen ñu wax dara kon tey liñ bëgg nii mooy ñu bàyyi Sonko ba pare partem bi ñu delloo delloosiwaat ko loolu suñ ko naree def mooy ne su yeboo ñun suñ justice réew mi ñu dindi ko rek te toog noppalu <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne Cheikh Bamba Dièye fa wax na moom candidat la 2024 l'observateur moo ñu ko xamal lii yéene kaay moom fa ñoo xamal ne Racine ay farandoram fa wax ne far force fra force doole mbaam fa war a nekk candidat laaj réew mi le quotidien yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne takk der yi fi mu nii fa ñuy contrôler oto yi daw ci biir réew mi na nationale sax dugg na ci fi mu toll nii presque oto bu leen romb ci biir dëkk beeg ak biti dëkk bee ci yem fañ lay arrêté laaj say këyit ndax fa ñoo jot ndigal ne bépp oto boo xam ne xamul këyit yu normal nekkul en fañ koy jàpp yóbbu ñu jàpp yóbbu ndax fa ñoo bëggoon a dem Barça ak Barsaq mooy téeméer ak juróom fukk ay ndaw Sénégal la dépêche yéen a kaay nee na àjjuma bii tegee loxo ca waaxi ndar ya ñeneen ñu ñu teg loxo mbiru tappale njublang ci wàllu titre foncier bu toll ci six cent trois hectares bu Niass ba tax l'observateur na xalifa bu Medina Baye fa xam ñu ko doon jéem a triande ginnaaw plainte boo xam ne xay njabootam def nañ ko nag am na ñu ñu ca teg loxo man ma teg loxo stade yi ne fekk fa Sadio Mané démb fa lakk caax ya fa dugal ñaari bii Cristiano Ronaldo dugal ñetti bii ngeen déggee ci ne Al seen équipe ba xawtul mu ray Al Fathu de cinq soro la ko mbuqi record yéen a ne Nicolas Jackson tamit démb fa dugal biyam bu njëkk a leneen lu xam mooy soxna suñu wax Marie Lo fañ koo jàpp teg loxo ginnaaw ab dóor tappale bu ñu wax na la def lu toll ci cinq cent soixante millions libération moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy ne mamaa kundul bi nga xamante ne fa waxoon lu du dëgg na fa hëmbëg fañ koo sàcc fa ñoo yóbbu doom jaak ginnaaw buñ ko tegee loxo nag tribunal attee na ko moom ak ña nga xam ne ñoo ko jàppale woon ca tappale ga juróom benn weer lañ leen daan waaye benn weer rek la ñuy tëdd kaso ka tëdd ci biir bàmmeelam ginnaaw buñ ko suulee ba pare fa ko muy lu garaaw bés bi yéen kaay na xam ngeen lu ko waral waa ji fa faatu léegi ay mbokkam ñëw jaawale niw ya jël beneen niw dem suul ko bi ñu demee ba xam ne def nañ xay fa ñoo jaawale niw ya léegi fa ñoo ñëw sulli bañ suuloon ba pare jox ko ay mbokkam jël seen bos daal di koy suul yëf yaa nga amee ca Koungheul diwaanu Kaffrine mu ngoog nag Sénégal lépp la ñuy jaawale fa ngay dégg jaawale ay doom nen na tuuti yi ci hôpital léegi nag jaawale ay niw suul ba pare sulliwaat ko lu yéeme la de